ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na ami téléspectateurs yi ñuy seetaan a travers Equivox TV nuyu nañ leen amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen di leen wax ne namoon nañ leen ndax ne nag gëj nañoo gisee temps yi yëpp euh, revue bi man euh, ñëwuma ci Babacar. bien sûr dafa mel ni sax yow itam gëj nga leen gis. waaw loolu am na ma. dëgg la euh, nii lay demee saa su nekk rek lépp xam ne jóge na ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko waxtaane baaxee leen ko mais à chaque fois rek ma ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay amee. nuyu waa di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saako si ñoom di wax que ni ñu ngi nuyu képp ku ñu suivre suivre rek di la ñaanal jàmm ji ko saaku si yow voilà ñu mm-hmm. bokk lépp voilà ñu dem seetaani revue bi daal di leen si waat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 31 mai 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy doore ko xëy tey ñëw ci xëtam mu daal le roi des arènes Modou Lo la ñu xëy tey wan lool daal di toog yëglikaay ba nee na wàllum boxe footing musculation ak ay contact fi mu nekk nii daal Modou Lo amul lenn loo xam ne nii fàtte na ko yooyu yëpp ñu limu daal bu ci ne Modou mu nga cay def lu doya doya doy maanaam daal mu ngi ci liggéey bu méttee métti yëglikaay bi nag nee na la mu bëgg daal moom mu mooy bu ca yeggee mook ama Balde maanaam corrigé ko jubbanti ko ba mu jubbanti ko loolu nu yëglikaay bi di sunu lamb xëy tey wax nu ko ñeneen ñoo xam ne nii moom seen ak jubbanteente léegi mu yegsi ndax nag yëglikaay bi nee na la commencé la cinq jàpp le six moom boo bëggee dégg-dëgg weekend bu nar a tàng lay doon ci lamb ndax ku ne xam ne ne Ndandi Fall bu Grand Yoff ak daam seen ba nekk ci école de Manga ca la ñuy bëre ñoom la cinq la ñuy bëre ka jaar mooy Habib Habib Lekran daal moo tëgg boobu combat boo xam ne moo war a dox ci diggante soq ak gàmmu gee loolu war a am tamit le 6 bii nu jëm di dimanche ji nu jëm fa nga xam ne nii moo de ca estadio fa nga xam ne ni boog moom moo de ca arène national yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom xëy na di wax muy soo technique na nga xam ne moom mooy président écodalit Serigne Ndiaye soo technique moom la mu xëy wax nee na ancien gloire yi lamb yi ñi bëre ba bàyyi lamb dañ leen war a gën a respecté jox leen seen cër ndax jàpp na ne moom fii ñu leen teg wala ni leen di traité daal jàpp na ne loolu jaarul aw yoon war nañ leen a gën a jox seen gëdd bu baax a baax mel ni ki ba tey bu nu continuer ci biir yëglikaay bi li suñu ci diggante Kaaw Gourdin yang Kaaw Caat Daawda Fall ba ci albarka Kayre daal yëgli kay ba mu ngi xam ne soo bëggee dégg dëgg daal ñoom ñeent ñii day ah daa mel ni seen tournoi ba daal nar naa metti ndax nag boo xoolee nan ko commencé deuxième journée ba nag moom maanaam fi mu nekk nii daal daa mel ni moom la ñuy waajal waaye loo ci mën a dégg daal fa nu ndëkk njëkk a jaar moom tar na ba yegg ci lool yëgli kay ba mu xëy ñëw tey dina wax lu mel ni ki leneen loo xam ne ni moom taroon na ba yegg ci lool mu doon drapeau chef de l'état ba nga xam ne mu nga doon amee fa nga xam ne moo doon ca raison ak Kaolack mel ni ki nag daal soo bëggee dégg-dëgg waa Bawal di waa région de Diourbel daal ñoo fa jaar ñoo Cees ga nga xam ne ñooy yem ñoom ñooy di waa Kajoor daal di finaalu waaye ba nu finaaloo nag moom Diourbel moo jël affaire ya yóbbu ko maanaam daal kon drapeau chef de l'État ren moom soo bëggee dégg-dëgg ñibbi na Bawal ñu ko fa yóbbu nag mooy équipe ba nga xam ne nii moom la waa Diourbel tànnoon yóbbu leen fa final ba nag ñoom ak waa Cees ñoo ko doon xëccoo yëg likaay bi nee na ñoom ñoo jër troisième place ba moom sunu làmb moo xëy ñëw dina wax lu mel ni ki noonu maanaam Diourbel moom moo di première équipe maanaam daal moom daal soo bëggee dégg-dëgg 3-2 daal dafa mel ni loolu la def fa nga xam ne ni moom moo di euh, waa Thiès ña yëglikaay ba nee na jàppal Diourbel am na 10 millions de francs CFA moom mi jël drapeau Sédélta bi ka nga xam ne moo ca topp di Thiès am 3 millions ka nga xam ne moo ca topp jël ñetteeli place ba am 2 millions di Fatick likaay ba xëy na tey ñëw ci ba tey ci catégorie e, ña nga xam ne ni ñoom ñoo ca gagné ci ay kilo maanaam bu dee catégorie ba nga xam ne mooy 66 kilos ba Aline Mbengue bu Saint-Louis daal moom moo fa teg tànk daal di fa gagné 500 000 catégorie 76 kilos ka fa teg tànk tamit moom moo di ngóor ñaax bu Fatick daal di gagné cinq cent mille catégorie ba nga xam ne nii tamit moom moo di quatre-vingt-six kilos yëglikaay bi ne na Dibokor Sañ moo fa teg tànk daal di fa yóbbu la nga xam ne tamit moo di toll ci cinq cent mille fa nga xam ne ni moom moo di catégorie cent kilos Mamadou Faye di ordinateur bu Fatick moom tamit moo fa teg tànk yóbbu fa ba tey cinq cent mille catégorie cent vingt kilos tamit ka fa teg tànk moom moo di Mouhamed Bayo di général Malick daal bu Fatick moom tamit moom moo fa teg tànk daal di fa yóbbu la nga xam ne moo di cinq cent mille mel ni ki nag drapeau chef de l'État moom loo ci mën a dégg metti woon na lool lool ñoom ñi nga xam ne nag par catégorie gagné nañu ku ci ne yaa ngay wax bu dee Aline Mbengue bu Saint-Louis la nee maanaam nekkul woon lu yomb ngir mu jàll foofu ka nga xam ne nii de moo di moo moo moo di ngóor ñax tamit nee na mu ngay sant yàlla mi nga xam ne daal moo ko dimbali ba nga xam ne catégorie moo ca raw gagné ko Dibokor Sagne tamit mu ngay wax ne tamit maanaam na ne moom catégorie bi mu bokk di 86 kilos gagné ko du yomb moo tax lépp la ca def ba gagné Mouhamadou Faye tamit mu ka nga xam ne moom moo di Fatick di ordinateur moom tamit daal moom itam mu nga xëy di wax ca la nga xam ne ni moom la gagné ca catégorie am di cent vingt kilos ya Mouhamed Baye tamit di général Malick moom tamit daal nee na mu ngi sant yàlla bu baax a baax ci catégorie cent vingt kilos ya nga xam ne moom moo ko gagné mel ni kon daal Fatick yëngu woon na ba yàgg ci lool lool ñoom mbër yooyu ko doon bëri nag mel ni ki entraîneur national di Ambroise Sarr ñëwoon na Fatick doon leen xool wala boog ñëwoon na Kaolack doon leen xool maanaam daal ña nga xam ne nii tey ñoom la ci war a nag convoqué ak équipe mel ni ki nag moom daal nee na ah, am na ci ay yoo xam ne daal attiré nañ attention maanaam bàyyi na leen xel bu baax a baax a baax moom Ambroise Sarr coach nationalu làmb ji yëglikaay ba moo xëy ñëw dina ko wax mel ni que nag foofa ca fa nga xam ne ni moom moo doon ca Kaolack moom yëngu woon na lool ndax yëglikaay ba nen communicateur traditionnel yi ñu ci baree bari ñu nga woon fa nga xam ne moo doon ca Kaolack maanaam doon teewe loola waaye la nga xam ne nii daal maanaam moo doon stade Lamine Gueye moom soo bëggee dégg dëgg feesoon na ba yegg ci lool ka nga xam ne moo di Bombardier maanaam moo ko ëmb seen itam yëngal nañu fa ba mu yëngutoo yëngutu maanaam yëngal nañu démb fa nga xam ne moo doon Fatick moom moo ngoom tamit assuré woon na lu jëm ci wàllum galañ yaak sabar ya yëglikaay ba moo xëy ñëw dina ko wax ñeneen ñaar ñoo xam ne tamit dañ leen a boole woon ca direct ba ñu assuré mooy lamit Samba bu TFM ak Malick Thiandoum mu TFM ma nga xam ne dem na fa gan bu yàggul mel ni ki foofa tamit daal loo ci mën a dégg sunu làmb nu koy wax de nee ñoom ñaar daal dem di yóbbu nu def ca direct ba moom maanaam ña doon seetaan ñëpp ñëpp ñoo ca kontaan muy càndum ak ka nga xam ne nii moom moo di Lamine Samba record tamit xëy na dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki daal lam nu xëy xam a tamit daal nee na Jurbel daal lanu tegoon fa nga xam ne nii moom moo doon ca ka nga xam ne moo doon ca Kaolack yóbbu na ko muy drapeau chef de ba yëglikaay ba moo xëy ñëw tey di wax lu mel ne ki noonu ak yëngal gi nga xam ne tamit Eumeu seen yëngal na ko stade Lamine Gueye yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu ko waaye ku ne xam ne ne tey la 31 mai 31 mai nag moom ku ne yaa ngi fàttaliku Sénégal ak France ca deux 2002 ca coupe du monde ba la nga xam ne nii heure bi kere defe naa ne Ndakaar wala Sénégal foo sànni mbattu tak na ndax nag ndam lu rëy la nga xam ne moom la Sénégal amoon te bit ba nga xam ne nii ndem si yàlla sa Pape Bouba Diop moo ko dugaloon ña nga xam ne nii ñoom ñoo doon équipe de France ba yaakaar naa ne Fabien Barthez moo newoon ca kaaya ñoom la ba fëg ñoom Laurent Balack ñoom Marcel Desailly ñu mel ni kii noona ñoo newoon ci équipe ba waaye Sénégal amoon na Aladji Diouf ak Fadiga ak ña nga xam ne ni ñoom ñoo doon Moussa Ndiaye ñu mel ni kii ñoona ba ca ñoom Lamine jaata mel ni kon loola kan soo bëggee dégg dëgg dee su ko fàtte beneen doomi Sénégal boo xam ne tamit boobaak tey maanaam bër bërki démb wane na boppam moom tamit siggilati réew mi ci wàllum football mooy ka nga xam ne moo di Edouard Mendy ca Chelsea ak ndam lu rëy la nga xam ne équipe ba am na ko ci Ligue des Champions seen digganteeg Manchester City muy loo xam ne ni maanaam kon moom soo bëggee dégg-dëgg jaar na ca tànki Tony Silva ndax ku ne xam na ne ci wàllum góol Tony Silva mooy sénégalais bi njëkk a gagné Ligue des champions waaye Edouard Mendy moom na mu ko gañee dafa doy waar ndax ay équipe yu mag rek la jadajal ak ay joueurs yu mag wan leen boppam kon Edouard Mendy gis nañ ko ci xëtum record mu yëkkati kubam yooxu takku médaille mel ni kon daal sénégalais yi loo ci mën a dégg bu nu xeeb sunu bopp maanaam réew mi maanaam réew la moo xam ne réewum teraanga la waaye réew la moo xam ne jàpp naa ne yàlla barkeel na ko trop trop trop trop waaye am na loo xam ne faw nu wax leen ko maanaam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun koo xam ne nii ci groupe bi la bokkoon daan jàpp ci liggéey bi nu daan ko wax Abdou mu daan ñu jàppale ci wàllum liggéey bu baax a baax a baax a baax bu yàgguloo njaay ñëw na fii dinu dimbali ci ay direct ak yoo xam ne ni daal ab liggéey la moom la borom bi jël bërki démb ci guddi loolu bokk na ci li tax sax maanaam moonu jàpp jàpp goo xam ne nii mënuñu woon ndakaaru bay dem ca drapeau chef de l'état ndax olof moo ko wax bu rek maccum mënuñoo ànd kon Abdou yal na ko yàlla yërëm xare ko aljana di ko jaal groupe yëpp waaye di ko jaal ki tax ñu xam ko muy El Hadj mi nga xam ne ni xaritu benn bakkanam la kon Abdou yal na la yàlla jéggal xare la aljana taximaan ba ko fii nag daw na xam ne mën naa rëcc bëti nit ñi waaye yàlla moom lu am fekke na ko am na solo kulli nafsin saa yaxatin mawti ja bakkan bu ñam dund dina ñam dee Babacar. Mhm. mu nekk nag euh, tiis boo xam ne vraiment dal na euh, fii nii ci Equivox muy Abdou Diouf nekkoon ndaw boo xam ne dafa xarañoon macha allah di di fi doon ñëw di ñu jàppale ci lu bëree bari yàlla jël ko démb ci démb ci guddi. non barki démb ci guddi ci mhm. accident moto boo xam ne rek euh, moom la def di nekk yal ko yàlla yërëm xaare ko arjana Babacar. waaw muy lu tiis a tiis di ko jàll ay mbokkam di ko jaal képp ku mën a doon ku ko xamoon. Mhm. wala nga seqoon ak moom àddina parce que wax dëgg yàlla man yàgguma ko xamaa fii laa ko xamee mm-hmm. hélas moo tax ma xam ko mais wax dëgg yàlla gis naa ne nit ku lewet la ku am yar ku joxe cër mm-hmm. koo xam ne day def mm-hmm. du sax xool nit bëri kersa trop trop trop trop loolu moom ma gën a impressionné si moom maanaam kersa gi bëri gi du xool nit et puis tey man liggéey macha allah moo lay wan ne rek àddinaa yi noonu ah kenn saxu fi kenn dara yàggu fi kon lépp lu si mën a doon rek ah na rafet rek a parce tamit bu rafetul rek net li ba day doy waar te wax dëgg yàlla daal metti na trop tiis na dee na ndaw mais nag comme la suñu Cheikh Al Maktoum waxoon rek maanaam ku tiim bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen boo tiimati rek. mën nga ko war nga ko mën a muñ te yàlla tax. itam loolu moo am gën a lee amul. waaw gën a bees lee am waaw mm-hmm. loolu moo. yàlla na ko yàlla yërëm yëpp rawatina ki nga xam ne moo di El Hadj Diouf. Mm-hmm. Ah, ñu daal di euh, démarrer rek euh, commencé ko ak suñu làmb dañ fa gis na ci xëtam bu njëkk rek moo di euh, ki nga xam ne moo di Modou moom ci box bi di footing musculation yëpp daal pour waajal combat ba ki nga xam ne moo di Ama Baldé. waaw c'est normal ah parce defe naa ne bés bi mu jëm la mm-hmm. donte des na ay weer parce que décembre lañ wax yàlla nañ ko fekkee tal ko. defe naa ne ku ci ku jëm ci bés bu mel noonu ak combat bu am enjeu bu mu jëm moom Modou mm-hmm. ah wax ma la sax box ak footing ak musculation contact waaye lépp loolu xam ne ni daal xalaat naa dina ko may ndam ca lay nekk comme ni ko adversaire am defee Modou nag comme ni ñu ko xamee rek maanaam nekk na mbër bi nga xam ne wax dëgg yàlla hmm. lu mënti xew moom à tout moment du ñëw si làmb nga ne Modou andiwul entraînement hmm. xam naa loolu bokk na ci li tax nga mu xam ne ci bés la jëm te ki mu ko seqal adversaire la taay hmm. la moo tax fi nekk nii xam naa ne mu gën a yokk liggéeyam et puis tamit loolu ami c'est très normal waa un sportif moom il faut ngay nangu di entraîner. waaw mënta mm-hmm. ñàkk. Mm-hmm. waaye ki nga xam ne moo di Nandi Nandi Fall ak Dame Sène Sokh ak ki nga xam ne moo di Gamou Gueye. Mm-hmm. ñu jëm ci benn weekend boo xam ne rek euh, dëggal nañ leen combat muy le 5 ak le 6 juin incha allah. waaw loolu incha allah le 5 le 6 juin lay am. parce que Sokh ku ne xam ne Nandi Fall ak Dame Sène. seen combat yàggoon na taxaw. Habib moo ko tëgg bu ñu Habib nag mooy Habib l'écran parce que Habib ku ko xam moom nga ko loolu nga ko xam. yàlla dogal mu jënd licence am léegi nekk promoteur. tamit taxawal ay combat bokk na ci soq gàmmu géey bi ñu war ko bëre Hmm, le 5 juin mhm. ci arène nationale ñu koy ñaanal yàlla mu dugg ci jàmm génn ci jàmm parce tamit kuy doog commencé la ci wàllum tëgg la donte yàgg na si làmb ci côté sponsoring di mhm. tëgg di tëgg defe naa li yëpp day gën a yokk mhm. mbër gën a mamay combat kon mu nekk fi kenn moo xam ne neex lool bi ci des muy Baba Diaw borom Thiam production tamit ku ne xam ne combat bii nga xam ne moom la war a tëgg dimanche di le 6 sox ak gàmmu daaw lañ ko waroon bëre biñ dañu bëree euh, Fourrière ak euh, bébé Diène samedi bët set dimanche ñu war a bëre soq gàmmu géey covid bi dugg ñu arrêté lépp lu yëngu-yëngu loolu taxoon combat bi depuis daaw ba ren kon combat bi am na at mm, togg nañ mu mel ni kon ñoom ñaari mbëri defe naa ne ku ci ne dégg nañ la nga wax jël naa fi soq mu wax jël naa fi gàmmu géey mu wax ku ci ne am na loo wax yaa ngi dégg kon sam dimanche le 6 moom itam ah ku yebu xaara xaar di nga gis lu doy doy waar fa nga xam ne moo di arène nationale te duñ ca yem ndax ku ne xam na ne euh, doomu booy kayre bi ca lay bëri mhm. yaa ngi dégg doomu rakku jéen kayre ah, rakkam rakkam da cay bëri ak doomu zil balde kon ñaari doomi mbër dañ fay bëri maam moor ak pël bu daaru muy lamb joo xam ne daal ñu nar a méttee métti la kaw si sa numéro 2 ak Modou Séréer tamit ci bés boobu la fa fas yéenee bëri. am na solo. Mhm. bu jogee jógee foofu géotechnique nekk président école Serigne Ndiaye moom daal euh, xëy na di àddu ci ñi nga xam ne moo di ancien gloire yi nee na daal il mérite plus de respect de considération waaw wax na dëgg de nit moom ay euh, maanaam nan laa ko mën waxee euh, enseigulaar yi moom ah wax na dëgg parce que tamit nekk nañ ñoo xam ne war nañ leen a gën a jox seen gëdd gën leen a jox seen cër. Mhm. yaa ngi dégg parce que tamit euh, rawatina ci ñoo xam ne dañu dem dem tey défendre drapeau national. à l'étranger defe ñooñu tey war nañ leen a waxuma sax bépp ancien gloire bu mu a doon moo xam bu football bi la bu lamb bi bu basket bu volley bi képp koo xam ne rek yow da gàddu drapeau bi défendre Sénégal à l'étranger war nañ la jox considération maanaam état war na la mhm. waxuñu nag sa lépp état jël ko waaye l'essence war nay participer yow ci sa fin maanaam bu sa carrière jeexee ba nga war a dund état war na am nu mu la accompagner ba nga xam ne yenn yi du la arrivé waaye tamit dañuy wax ñi ñi ci toll nekk ay jeunes di compétir nañuy sóoraale ëllëg parce que yooyu yëpp li koy waral mooy ah yenn yi mën na la indil après ëllëg boo demee retraite mu indil lay jafe-jafe te yooyu dafa jar teel a moytu ci bi ngay nekk euh, ci sa jeune carrière am na solo drapeau c'est chef de l'état bi amoon fële ca Kaolack ñu gis ne nag euh, Diourbel moo euh, détrôné ñi nga xam ne ñooy waa Thiès vraiment am xale yoo xam tamit wane nañ ci seen jàmbaarte. waaw mu mel ni Diourbel moom kon loolu mooy lu jëkk ci at ci histoire am. Mhm. parce que drapeau chef de naa ne mosu ko jël mu ngi koy doog a jël. Mhm. ma ci félicité képp ko nga xam ne ni yaa ngi bokk ci région de Diourbel que nag man ñaanoon naa ko fi ah aminoon naa ren. nga dem ma amin nga dem ma amin ma ne la nga ne nga naan Fatick ma ne la amin nga far na jàll. waaw yaa ngi de kon sa amin kooku daa mel ni mujj na jàll <laughs> waaw parce que Diourbel jël na ko di sama dëkk parce que waroon gën a xam ne doomu bawal laa kon vraiment tey daal ah vraiment moom <laughs> sama xol sedd na ci waaw sama xol bi sedd na ci loolu lool lool di féliciter képp koo xam ne yaa ngi woon ci équipe bu Diourbel boobu di féliciter staff ba yëpp mais di encourager ñi ñu ko seqaloon ci wàllum final bi muy waa région de Thiès parce que tamit Thiès ku ne xam na ne ah, jël nañ ko fi Dakar moo ko fi mujj jël Fatick jël na ko lu bare bare bare ay région ay Kaolack waaye nag Diourbel mu ngi ko doog a jël di wax xale tamit am fu ñu wane seen bopp ay Dibokor Sagne ay Ngor Niakh général Malika mm-hmm. ah, nga foon wane seen bopp ci seen ay catégorie ah. mu mel ni daal drapeau sur drapeau tamit neexoon na trop yëngu na lool lool lool mhm. vraiment mhm. di tamit suñu ñàkk a teewaay foofu mhm. parce comme li ma leen wax rek dafa am lu ñu arrivé loo xam ne ci weekend bi moom dafa diisoon ba nga xam ne nii moom dafa doyoon waar daal waaw Euh, Ambroise Sarr nekk coach des Lions moom nag nee na certains lutteurs ont attiré mon attention <laughs> maanaam euh, ñenn ci euh, bërekat yi daal na ñoo xam ne mm, ngi ko doon jongante. Mm-hmm. wax na dëgg que moom entraîneur national la su mel noonu amee day dem di xool mm-hmm. parce que Ambroise noonu lay tànn équipe nationale. Mm-hmm. maanaam topp drapeau chef de l'état di topp yenn ñoom la war a jël pour cinq yi mu war jël pour équipe nationale xam naa moo tax nag mu jàpp am na ci xale yoo xam ne attiré nañu attention fa nga xam ne nii. moo doon ca drapeau de ba te itam wax na dëgg mhm. ndax am na ci xale yoo xam ne wax dëgg yàlla moom mhm. ah macha allah daal mhm. waaw Babacar waaw waaw mooy li rek Jurbel xam nga Jurbel moom mooy premier ak euh, dix millions yoo xam ne nii am na ko ci moom mooy moo nekk premier équipe bi moo gagné am dix millions deuxième place bi Thiès a ko jël am trois millions troisième place bi Fatick ko jël am 2 millions voilà. Mm-hmm. am na am na solo vraiment bu ñu jógee foofu ñu daal di dem rek euh, fi nga xam ne moo di record yooyu la information yu mujj euh, fekk suñu làmb ñoo ko fësaloon. bu ñu jógee mm-hmm. foofu record nag dañ fa gisaat rek moo di drapeau chef de l' état ba tey rek Diourbel ñoo daal di jël ndam li ci kaw ñi nga xam ne ñoo di. di lu njëkk comme ni ko record waxee ah et puis di lu am solo ñu leen di féliciter rek. Mm-hmm. waa Diourbel. waaw <laughs> di wax na tamit li olof di wax rek xëcc bu daggul mhm. dikk daa mel ni lañ doon xëcc bëggun ko ay at yàlla indil na leen ko démb ca fa fa nga xam ne moo di ca Kaolack ah, vraiment di féliciter ñi nga xam ne rek comme ñoom ñoo di ak waa Jurbel yépp mhm. di encourager tamit ñi ñu gagné muy waa cees parce que mhm. tamit lamb noonu laa gañe ak ñàkk la rek bon loolu mooy sport prochaine fois ah keneen mën na ko gagné. waaye mhm. man su ma sañoon daal saa yu ñu tëggee drapeau chef de l'État moom mu fanaanee bawal comme ni mu fa fanaanee démb. toog leen xaar yéen ñu fekk leen seen dëkk yéen ñu fekk leen seen dëkk gagné ngeen ko ngeen organiser ñàkk ko ba pare naan beneen yoon. baax na bés bu ñu ko organisé ngeen xam. ne moo di Eumeu Sène vraiment mu def benn eh. waaw moom ak Bombardier daal. Mhm. Eumeu ak Bombardier daal dem yëngal nañ fa nga xam ne moo doon stade Lamine Gueye bu Kaolack mm. waaw mu mel ni ñoom ñaar tamit ñëw nañ jëmmal bés bi parce que tamit loolu dafa dem ba foofu moo lay wan ne moom itam mm-hmm. demoon na soutenir xale yi wan leen ni ñun seen ay mag ñu ngi seen ginnaaw mm-hmm. te loolu am na solo mook Eumeu Sène tamit vraiment ñu nekk ñoo xam ne daal ah, def démb man de maa ngi koy salé bu baax a baax te yëpp waa làmb maa koy salé gis nañ ñu def fa benn duo bu waaw loolu la ñuy xaar si ñoom ah parce que tamit xam nga lan la liggéey la càndum mhm. ku ne xam na li muy def lu mu man la mhm. ndax boo mënut li ngay def kenn du la jël di la jëlaat mhm. tey càndum gis nañ ko RTS mu def fa liggéey mucc ayib ñu mu jóge waa mu nekk RTS ba waa Sen TV topp ko topp ko ba jël ko ndax man la muy def mu nekk fa ba waa ITV topp ko ba jël ko ça veut dire mën na lu muy def bu ko mënu kon rek loolu du am yaa ngi dégg ñu ne déet ne waay waa TFM jël ko te foofa tamit ku ne xam ne ay cuune newuñu fa mm-hmm. kon ça veut que moo lay wan ne càndum man la muy def moo tax mu dem fii dem fii dem fii ndax nag boo mënut li nga def ami mm-hmm. soxla la day jafe ko seqee koo xam tamit mooy Lamine Samba di koo xam ne ku ne ku ne xam ne commencé wul TFM mm-hmm. Walf la ko nit ñi découvrir wala boog ci rajo banlieue la nekkoon sax waaye Sénégal bi ñu koy xamee nag ñëw na wal faj Walfadjri fa la fii mburu muy xuyum xuyumee di suñu grand daan fu def liggéey bu am solo loolu attiré attention waa TFM ñoom tamit mm. ba ñu jëli ko te defe naa ba ñu ko jëlee tamit rusuloo wu leen liggéey na fa liggéey bu mucc ay moom suñu grand Lamine Samba mm. kon defe naa tey li ma lay wax la rek ku ñu ñëw ne la lii ne la laa jëlee jëlee fi yóbbu fi yóbbu fi ça dire que am na loo man ci lu ngay def mhm. kon ñoom ñaar bu leen bu ñu leen boole ci plateau ñu def diwo boo xam ne démb direct bu normal bu rafet la bu di rafetlu defe naa loolu moom wax dëgg yàlla dama naan sax du doon information parce ñoom ñaar ku leen boole ci plateau war nga xalaat ne que lu neex war na fa am mm-hmm. ndax ñaar lañ ñoo xam ne macha allah mën nañ li ñuy def te itam ay borom xol yu nice lañ di leen ñaanal rek yal leen yàlla gën a dëppaleeg seen ay kilifa yi ñuy liggéeyal ñoom tamit yàlla gën a tëppe seen xol parce que bu ñu àndee rek pour mën liggéey mm-hmm. ci biiru TFM njariñ lay doon seen njariñ la parce que tamit loolu moo fi ama ah. mm-hmm. affaire yi moom kenn moomu ko seen du asamaan la jarul bu waxante di nuyu groupe Futurs Médias yëpp rawatina suñu sopp yi ne foofu ñoom maa maawoog ku mel ni ma doon Diouf ak mhm. ñoom Malal Junior Diagne waaw am na solo xibaar jar fandar képp tey loo tàggatoo waaw di ñaanal ñëpp jàmm di mhm. remercier ñëpp di wax que ni yàlla na Sénégal am jàmm te du continuer di ko am ah, bon di wax ne que nag àddina moom nii la tudd ah. mhm. tey nag ku ne xam ne 31 mai la ku ne xam ne 31 mai 2002 ci lañ defaloon France bagage ba te loolu kenn dootu ko fàtte ndax coupe du monde ah première coupe du monde Sénégal ah, kon daal ami noonu la demee di wax ne defe naa at boobu kenn dootu ko fàtte. Mhm. muy lu neexoon ci sénégalais yi. Mhm. waaw di félicité ñi ko defoon muy génération 2002 ak ñi leen entourage woon yàlla na ko yàlla xare aljana mhm. moom Pape Bouba. ñoom El Hadj Ousseynou Diouf. ah Moussa Ndiaye a ngi ci woon Fadiga. Tony Mario Silva mu ne woon moment yu neex ñoom Henri Camara ah di wax ne loolu mooy àddina gis na tamit def lu nice ah, ci kii bi ci Ligue des Champions <laughs> ak Chelsea waaw mu mel ni wax moom tamit Mendy mhm. ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax a baax di wax ne que vraiment moom tamit ah euh, bon euh, defe naa ne loolu mu def am na solo trop moom Mendy mhm. parce que tamit wax dëgg yàlla ku ne gis na ne mën na góor lu ndax tey bi ko Chelsea di li ma lay wax rek ku ñu jëlee fen yóbbu la fen ça am na loo xam mhm. ndax ku ne xam na ne demoon nañ ba benn moment suñu ne est-ce que Mendy mi mooy loolu mais gis nañ ko mu commencé ci club bu France bu ndaw jógee fa ñëw ren war na fa boppam waa Chelsea gis ko topp ko ba indi ko Chelsea te defe naa lañ ko jëlee woon Chelsea indi ko fa ren ah rëcc wuñ ko de ndax ku la jox Ligue des champions te ku ne xam na ne que demi final ba mu seqoon ak ñoom Benzema bal ya mu génne góolu ne mënu ko génne kon defe naa bu finaaloo jël ko vraiment du ñu bett ñu ngi koy félicité moom Mendy mu mel ni siggil na Sénégal ndax mooy suñu góol fii ci équipe bu Sénégal mm, di waaw di di di di di ci félicité daal ñi nekk équipe nationale yëpp ko ne xam ne actuellement ñu ngi regroupement fa nga xam ne moom lañu ci Radisson Diamniadio mm-hmm. rawatina suma xarit suma rakk ji Saliou Ciss mm-hmm. ak ñoom Henri Thierry ah, euh, nu mu tuddati Sadio Mané mm-hmm.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 du Maama Lamine moom moo may téye. la voix de le G5 gala cinq drapeaux cinq grands combats ci benn takkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena